buga la jaar muy affaire sponsors naka ngeen nekk di naka nga nekk di dundee loolu. waaw comme man si loolu laa bëggoon a ñëw sax ndaxte Gambia man sometimes daf may jaaxal man xama ndax dañu amut marketing strategy wala we don't know the we don't have the mindset of supporting our own people ndax xama lu xew. Mm. ndaxte di nga produce sa film waxuma la film kese sax waaye télé yi seen sax amuñ sponsors déedéet kay. di nga enu sa projet nga yóbbul ko compagnie sa proposal sa everything nga binda nga won ko sa tiré la mo setan sa tiré la mo content lol mm-hmm. ne yena def li gambien bi mo def li li rafet na de nga ne ko waaw gambien bi moko defar keñ ngeen waxtan mu neex nga yakar na ki keñ mo superé dina la jox ay million mu pere mu ne la wa yow dina la kol dina la kol bobu nonu di nga tok be gannaaw du la day bëri ci di nga follow up follow follow up ba sona dara du dox man mun naa laa waxal nii depuis ma film suñ film si mosu ñee am sponsors man suma film bu lañ in 2016 the great big three kingdom man maa producer suma bopp I spent almost one hundred thousand dollars plus after launching I get nothing less than twenty six thousand dollars loolu lu ma luus ëpp na. Mhm. is more than fifty thousand dollars yi loolu laa luus. so léegi su fekkoon ne man aw ma woon paason bi. den du kon man xàddinaa bàyyi na. Mhm. la. waaye nag maa ngi ñëwaat still maa ngi oo sponsor si waaye still sponsor amut waaye sponsor amut still ñu ngi go ahead with our launching te dañ koy def yaa ngi dégg waaye lu ñuy ñaax Gambien si mooy ne réew mi ñoo ko moom te dañ ko war a développe mhm. nuñ ko mën a développe gis nga Sénégal dafa dox de. Sénégal dafa dox. ñin am nañ fa ay colit yuy def film seen benn film ñi am ko mu daw si tele bi rek am dara la ñoom Sanex ñëw nañ fi man seex naa waxtaan ak ñoom ñoom gëm nañ ne talent bu nekk Gambia. Uh-huh. Sénégal talent bu fa nekk ëpp talent bu nekk Gambia. Uh-huh. te ñoom gëm nañ ne ñin ñoo leen ëpp advantage because of angale bu ñuy làkk. yaa ngi dégg kon lan moo war a tax ñin du ñuy jàppale. gis neen former président jamono boobu daf daan oo fii Nigerians yi mu jox leen some fifty thousand US dollars xaalis boobu noonu suñ ko duggoon si film industrie Gambia bi nga foog Gambia léegi demut ci kaw. am nañ fi ay film yu nga xam ne ñi ngi win award. Mhm. gift from Babylon. Mhm. ñu ko liggéey fii ay Gambian leen. ñaata award la win. Mhm. and mu ngi dem. kon suñu jàppalee ñu dem. Mhm. talent bi mu ngi fi barki Seydina Mohamed talent bi mooy Gambia. Euh, waaye jàppale bi moo des euh, euh, ko pa modou thiam hane bi a télé ɓe jandoron aɓe sumabde challenges mi yalon komin ko asa filmmaker abola fek ñin abola inde gambia ñin abola explain kan doron ako gambia government a ketaw ñin mollete mi yalon komin ko de a also contribute a lot to it because a ingantala pour que loy mofula singola ka juɓe komin ko a filmmaker sol ɓe fasanola ñaadila but the story is sad because hane national assembly walla ñin dulal mi yalon komin ko décision ol ko megge ibuka mo moy mi yalon walan ko men ko di person talk about films mm-hmm. so so waketa nyum ko le akubante anu fanana rata ka fala diamo no ko men ko association ol bejele mel yalan ko men ko they were actually form, uh, uh, so that at least they can run um, the, the, the, the, errand of the um, uh, their various bodies wo mo fenete mi yalan ko men ko kumada bare nga nyata yajala ko men ko e be do ko ke kana bare hani bi do ko ngin destale e ka min ke nyen walan training ti so ate ate he is actually expecting them to do more wo mo fenete mi yalan ko men ko ba kala so I comparison uh, jubele anyin dila kay tan ko men ko ne senegal banko kan jube ani a gambia ntolla a kan kilingo fo ntolla ka ko kilingo fo andong and ah, itola itola industry be grow a so why is it that the gambia industry and the film industry is still lacking mm-hmm. ah, ko non ntala ntafara la fa pour kamen nyambas je dorong wala nyinti ko men ko ay kuma la fa me yalan ka kuma ke film me kasola anum fana the ministry of tourism and culture ama bunda balti mm -hmm. because ntoli ya komen ko do ko be ke kan tourism la karol mm -hmm. but ni nata um, nyang arts and culture little effort is actually made about that mm -hmm. and that is where the filmmakers actually fall in so I believe when, when this is actually separated, there then the artists will also have their say in you know making their own decisions. Sure. I know that okay, various bodies were actually formed, but you know even those executives, if they want to do something, they, they need to be supported by, you know, those bodies. Mm -hmm. So if they don't have support from them, it will be difficult for them. So that is the reason why we believe that capacity building too is something that is also important. Mm-hmm. Akumata ba kele mo hada madunga ibe fonga fren ninke kan puri karango ke ya long ko min ko ibe nyana ke kai saje isa long ibe sila juma tala mm-hmm. wala sabo nyin association ol ka training ol organize kai tandi mo la ko min ko ibe nyin doku wala nyen taka keten nyen taka kenan